ki ko def def ko featuring ak euh, Mister euh, featuring bi dimbali ma ci. nga ko blende. non ak lu brique. ak lu brique bi mu def ak. Kosa euh, day def effet MNO. MNO Menemo. Menemo mooy Salif Keita mooy Salif Keita. non Menemo Menemo mooy ah, Salif Keita. lu rastaman la. pour un certain xëch xëch. d'accord naka nga gisee première réaction boobu. après bon day def effet day def effet à la base. à la base dans le dans le game dafa am lu ñuy wax ay pic. Mhm. dafa am loo xam ne ni ay kobas la quoi. pourquoi nga ko blende répondre moom la ñu waxal. mais parce que moom la ñu waxal. d'accord tout laisse à croire que moom la ñu waxal. d'accord parce que ay joxe ay xaru tabaski. Mhm. si ay chroniqueur c'est nga ko blende kii la fa. Mhm. chapeau à lui. yow jotoon nga sa xar. man jotoon naa xar pour at mi njëkk mais at mi toog joxuñu ma parce que léegi moo ko sàcc. tout laisse à croire man bi ñu ma koy jox man fekk ma fi quoi man julli ji woon xamoon dëkkuma Dakar. yow dikkee laa ko noosee nag noos naa si am. bi des mooy. di ko wax ne ko ku ñu wax yay king bi kan mooy woowee boppam king bi. suñu baaba. waaw am na benn mhm. sound bo am na benn sound baaba baaba blende bu mu woy bu mu tuddee. nu mu tuddati xaw ma benn son club quoi damay fàtte nu mu tuddati son bi. am na benn punchline waaw metti nii. Daisy il a il a fait il a fait. les trois successions léegi loolu bu la ko ku nekk ci hip hop wala ku loo xamante ne nii defalu la déchiffré bi doo dem comprendre mais nga ko bi muy répondre dafa répondre ak lu big ba répondre ñeneen voilà léegi nag ak lu big dañu jàpp ci seen subconscient ne mhm. ngaa ka son bi mënut bind tey mu pare tey affaire bi ñu génne génnee mu génnee hmm. affaire bi dafa am ku leen jaay mhm. avant bi di génn sa son bi waaw sama son bi baal leen nag allez allez allô waaw après moom dafa jàpp ne mhm. dafa am keneen ku leen jaay mu jëñ ko bril mhm. donc loolu moo indi bril si game bi mhm. ñeneen ñi nga dégg ñu si waxaat yëpp seen yoon nekku ci mais dip dundi gis moom aussi dugal nañ ko ci coow li ko ci dugal parce que attends kan moo fi tudd euh, kan moo fi tudd comment il s'appelle naka lañ ko ngaakablende moo seen seen seen seen papa Do Do waaw ah, mooy Dominique dip dundi gis si pay xam nga bu fekkee dama wax ak Do ak bu ma waxee Pape Sidi sa pap papa Padros Pape Sidi laa waxal je parle pas de. Pas non dem leen ngeen laaj seen papa Do. mooy dem leen ngeen laaj ah, Dominique. ba tey mu ngi wax ak Akhlou Brick Akhlou Brick bu fekkee dafa ne Akhlou Brick dem leen ngeen laaj seen papa Do bah Dip il a une place de de king dans cette affaire. d'accord. il peut ne pas répondre c'est un choix mais bu fekkee il s'est senti frustré wala vexé mën na ni man répondre non. d'accord euh, clash entre Jaman ak Braman. Bra Braman waaw ak Jaman waaw. sama yoon nekk ci li ma ci waxoon rek laa ciy waxaat xam nga lan mooy problème bi mm-hmm. ñaar ñoo xamul kañ la ñuy ànd xamoo kañ la ñuy juboo mm-hmm. boo ciy wax wax ci jàmm mbaa nga noppi ci waaye nag sañ naa mm-hmm. euh, pardon c'est comment madame Astou Astou ak Padros bu ñuy ànd ñoom ñaar ba xulul Padros téye boppam ci man bu astu amee dara ñëw ne ma am naa dara génnee naa son ma teg ko bu Padros génnee du ma yëg du ma wax du ma def dara su ma ko invité mu bañ ma bàyyi si ma yem si Asturé c'est mon cas avec Jaman et Bra et eh, Jaman je lui ai fait dire je lui ai dit si benn événement bu ñu demoon euh, ci euh, ñoom Malal nee naa ko man seen yi fi caaxaan yi ngeen nekk nekkuma ci man wàlli bañewu ma merentewu ma ñoo xamul kañ la ànd dootoo ko invité kañ nañu non non moom man may c'est pas moi c'est pas moi c'est wax ma du ma ko invité c'est pas moi il faut jamais dire jamais dans la vie et puis Diamane c'est mon frère mais instant bi duggatoo ci ay projet lu ma nekk xamu barki Seydina Mohamed gëj naa xam Diamane ci lu mu nekk très bien gëj naa xam damay toog ba mu yàgg gis ko ci affiche pour man ndox lay publicité ñu ne ma album moom mooy génn pour yow ndox lay publicité barki rasulillahi loolu laa ci am sur le cinq ans d'accord euh, def euh, effet effet secondaire éphémère ban nga ci gën a apprécier yow en tant que rappeur en tant que euh, membre ci hip hop Galsen bi. man la def effet. def effet éphémère effet secondaire ak. Euh, day def effet lañ njëkk a génnee. ak lu kii ak lu break. waaw ah, xam na kii euh, ngaaka def voilà def effet mi ngi noonu effet secondaire. Ah. les effets. Oh. très bien uh-huh. après éphémère ñëw après mu amaat beneen tey. muy mbay mbay la mbay kii non sànq ci ce matin le gars génne na benn. nga ko blende mu ni mbay kii comment il s'appelle mbay mbay lëmbe mbay lëmbe donc ñeent yooyu ban nga ci gën a am na benn bu ma déglu aussi boo xam ne génnagula génnagula kan ma ko def évidemment lu bëri xanaa ay exclusivité la. non non ko wax que gars yi nee nañu. gars yi nee nañu ñenn ñi nee nañu Morsa enregistré nañ ko depuis ñeneen ñeneen ay exclusivité la. non ay exclusivité la dama lay la ne kii wax ci kii loolu lay sukkandiku tontu. ok ak yu bees. mais mhm. bu paree dafa am nopp yoo xam ne dañu audible hip hop. ok d' accord ma li ñuy def mais des fois ñu yónnee ma ma ne à part si déglu ma lii. kon yii di génn yëpp balaa muy génn yow da nga koy déglu ba pare. déedéet wax mooy euh, Pape loolu su ma wax nii. parce que loolu moo am. non non non man mosuma déglu sax dara astafurlah astafurlah. non déglu mais attends astafurlah comment naka nga mën a liggéey ak Ngaaka Blindé te ñëpp nee nañ yow tu travailles plus que ak euh, Dip. moi je travaille avec tout le monde. non mais nee nañ ñëpp ñëpp nee nañ yow tu es Dip. ñëpp nee nañ. tu es Dip Doundou Guiss Ngaaka Blindé c'est mon ami. c'est pas mon ami c'est mon frère. ah mais tu es plus que Dip. non c'est pas vrai moi je suis tous les tous les cinq xaw ma tous les six. dama lay wax benn affaire dañu màggandoo dama dikk Ndakaaru di def émission de rap am ay grand yoo xam ne dañ ne booy bi ndereng la loolu lañ ma doon wax. il m'a marginalisé de telle sort que il me fallait ma dem seet ay boy yu am talent si underground bi génne leen ñu àndandoo màgg man du ma yar garab ba mu màgg ba huit doom yi des ma koy xasaat di ko yàq du ma ko damm ngaa ko blende di dundu gis mhm. Akhlou Brick Paradise mhm. Elzo Jamdong mhm. Omzo Dollar Rifu Naara P ces genres de d' artistes là mën naa juum de am na ñu ma fàtte peut-être wala ñoo xam ne da ngay wax ma ne la wax nga dëgg mais xoolal ñooñu xoolal c'est une génération. Mmh. qui est venue. Mmh. jële grand yi li ñu jotoon a def ay ñoom Tigrim bi ñoom Simon. Mmh. ñoom cinquième underground. Euh, ñoom ñoom seen kumpa li ñu jotoon def. ñoom ñu fexe ba téléphone yi jugee ci koñ bi. dugg ci téléphones yi percé ko donc on peut pas venir après. di def même. basses yi gars yi di def affaire yu am naa yoo xam ne affaire yu caaxaan. d'accord yow gis nga ni léegi lii dafa war a continuer wala clashante bi. le clash c'est quelque chose d'essentiel dans le hip hop. mais lii actuellement parce que bu amul rek. lii moom wax dëgg yàlla ay golo lañ leen bëgg a jàppee. te man su ma ah. sañoon ñu arrêté non je te jure parce que après bon ay nit ñoo xamante ne. mais instant yii kenn du bëgg a mujjee affaire bi. voilà non non non pas mujjee affaire bi mais kenn bëggul mujjee. Pape Sidi Pape Sidi dafa naan là je suis pas d'accord parce que benn. ay compte Instagram yu Ngaaka Blindé mi ngi boosté wu. déglu ma rek ay compte YouTube yu Ngaaka Blindé mi ngi gën a jóg. Mhm. ñu xamoon am na ñoo xamante ne xamuñu woon Ngaaka Blindé démb laa toog ci rajo animé ba nit dugg ma ne ko xam nga Akhlou Brick mu ni déedéet xaw ma ko de ma ne ko waa toogal nga déglu fekk dama doon def spécial ñaari temps yëpp benn bu ci nekk fexe naa ba kooku xam ko cest ñu ngi def seen promotion mhm. la kon bul nii ñoom mënuñu bàyyi lu ñuy def. non mën nañu arrêté pour le mën nañu arrêté. mën nañu arrêté parce que mën nañu arrêté. après tu te diras pourquoi parce que ki ñëw déglu la pour clash boo clashatul dootul la lijjanti quoi. il faut être intelligent mm. dans la vie. moi je préfère am. mais il faut bu amul clash lan moo koy doxal. am so sorry Padros je préfère am cent personnes yoo xam ne c' est des personnes ñi nga xam ne dañu gëm li may def for real que ñoo xamante ne dañuy ñëw rek. événement mm-hmm. benn affaire moo leen indi. Mm-hmm. boo leen gisatul dañuy dem. nga ko blindé. Ahlu Brick Paradise du ñu golo kenn c' est pas des bêtes de foire boo xam ne ay boy yu ndaw ñooy toog ci internet bi naan leen eh classe ko wax na la di yow eh yaa ngi koy def nangam eh yow génnal c' est que du ñu ay golo en fait yow boo waxee li xam nga ko xam moom bu waxee li moom xam na ko. mais public bi waaye ñun public bi nanguwul loolu. supporter ni koy waxee. moom bu ko waxee xam na li mu wax. farloo bi parce que maîtriser nga d' abord waaw. voilà ku nekk yaa ngi xaar sa waay génn. pression boobu topp leen jamono yii ku nekk. pression pression non amuñu pression. en fait dama lay wax benn affaire. le truc de Akhlou Brick et de Ngaaka Blindé pour le moment lan la gën a nuróol. Mm. kaañonte. c' est à dire nekkaguñu si modulu sax clash. si kaañonte la ñu. mais est ce loolu baax. bu nga déglu clash da nga dem nga déglu ay ay ay ay kii nii. Cap de Hangers that's right wala nga dem nga déglu ay Omzo daal mm-hmm. ñooñu dañuy clash parce que ñooñu seen clash dafay jéggi dayoo bu ko mm-hmm. déglu rek da nga naan dem lii jigéen ñi mu ngi koy déglu parce que dafa dafa mais xaar nga Omzo daal dugg ci coow li lu si yoonam lu si yoonam lu si yoonam si Omzo daal moom dafa wax lu leer mm. tooñ ma kenn moom bu ma tooñ xam am na ñoo xamante ne dañu mën clash mm-hmm. yàlla moo def ñu soxor loolu laa lay wax ci écriture bi dañu mën a bind seen xalima dafa ñaw tam seen làmmiñ dafa ñaaw. léegi Rifu xaar nga ko mu dugg ci coow li. Rifu il est déjà parti mais bon il n'a pas eu de répondant mais ngi toog jàpp njàmburam. parce que est-ce que du moom moo leen ëppal sax. non non ak euh, horizon yooyu bokkul. dégg naa bi dëgg dëgg Rifu rappeur yëpp buñ sañoon instant yi bokk si ñu ngi xaar ku leen tudd. mais dañoo war a bokk. non bu sekk loolu laa bëgg la aussi par moment la xam nga tamit mbalax bi nekkoon na fi nii Wally Seck Sidi Diop kër non Wally Seck Sidi Diop mos leen kii génne son kii génne son kaa ma wax benn affaire gis nga Wally Seck mooy génne son Sidi Diop topp ci génne beneen mhm. mosoo gis le contraire wala mhm. mu am spoiler ku dem déglu benn son Wally ne Wally mu ngi waaj a génne dara Sidi préparé ko bu Wally dugalee mu dugal mhm. spoiler la quoi te loolu Sidi il l'a réussi dem na ba telle sorte que bu ñu waxee Wally Seck dañ ciy teg Sidi Diop te pourtant ñëpp xam nañ ne. Mhm. Sidi Diop am na ñeneen ñu ko xam ne mën nañu way comme moom ci ci ci musique sénégalaise. Mhm. très bien bëgg a wax foofu noonu ne la. Mhm. booy yi buñ toppee système bi. après ah c' est pas intéressant en fait. d' accord jàll si leneen quoi. parce qu'ils ont des carrières à construire ah. effet de l'air